la ginnaaw bi waa yeewi askan wi yeewee li nga xamante bi moo di askanu Sénégal waaye suñu gaynde kat kenn demul ñu des ginnaaw seen jongante bañ doon amal foofee ca yi dóor ko doon tëkku naan ko ko mu mosal ñu si làmmiñam wi ne nam jàpp na mi kat jàpp ko saago yu métti yoo xamante ni dem na dem moom sax kiwin bis banaan ko yow mi kat góor képp nga bëgg suñu góol bi kat moom nga teg bët waaye xamee ne suñu góol bi dina ko doo ko mos dina ko yemale sa laaxu ngénte moom it mi nga xamante ni moo di adda moo ko xam-xam ko ci saaga waaye mujj na nee na kat day mujj concurrence lu muy concurrence al ki nga xamante moo di Queen Biz lay day tëkku ca way waa génn na way woo kenn xamul lu muy sam aadamoo tey ñoo dimbali te bañ ñu bàyyi suñu ki nga xamante moo di Queen Biz